ki la gën a ki la gën a tedd mooy ki la gën a ragal yàlla waaye cëriñ foofu rek la bàyyi ko ñun ñëpp noo bokk di jàmm noo bokk ndigal li li ñu digal noo bokk li tere da ngeen baax de waaye ñun ñëpp noo bokk di jàmm cëriñ cëriñ cëriñ cëriñ amut ci balaay ci wax ci ci wax suñu borom jooju rek ci alquran ci la bàyyi ko inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën a tedd ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla ragal yàlla nag euh, euh, doy yéeme la waaye kon ku yéene sax ñoo jombul ña nga am ñàkkuloo ci xam euh, kon ad diinu nasiha yonent bi da wax ne diine nas laabiri rek la diine ak diinu nasiha diine laabir rek la kon mooy li ma li ma wax li ma yéene sama bopp moom rek laa leen yéene li ma bëgg sama bopp moom laa leen bëggal ndax noo noo bokk bokk Adama ak Awa bokk di jaam bokk ndigal bokk tere kon eh, te it yonent bi moo wax ne diinu nasiha diine ba diine jeex na laabir rek la ngeen ngeen xam ne man nii tey yàlla def na lu am force daje nun ñi nun ñi parce que mooy ñu am occasion euh, ci daje bi loolu man am naa ci cant gu rëy cant gi weesu wut am naa yëlla ju ma mën a wax ak yéen man leen a labiré labiré gi nag daanaka weesul kàddu yooyu weesul kàddu yooyu jariñ amut inna akramakum inda atqaakum moo moo mooy moo foofu la joge ki ki la ki ki gën a tedd mooy ki gën a ragal yàlla dañuy da ngay dem da ngay sa sëriñ dañuy sa sëriñ si maanaam ñi xam ah, dañoo dem ba rafet seen jortu rafet ci moom sa digg moom boromam loolu mooy moo foofu la sëriñ tàmbalee ki nga xam ne da ngeen bokk di dund ngeen di bokk di jëf ngeen di ko gis muy mu jëm ci boroomam yitte lam ci war a yitte yitteem jëpp mu def ko ci lépp lu muy def yàlla tax mu di ko def na ci boroomam kooku loolu rek ku may njiit ndax njiit gi sax wutu wutu tëllu ko njiit googu mu am sax tëllu ko waaye nag ña ka ña ñi ko ñi ko ñi gis loolu ci moom ba ñee ko ci ba yaakaar ne man la de mën nañ ko wut ci moom loolu rek moo indi cëriñ loolu rek moo indi cëriñ am nawul noonu loolu loolu rek la kon ngir noonu la ngi doy daanaka doy na ngir xamee ko noonu xam bu leen jombalee dara seen bopp ci lu baax dara jombu leen wa laqad ba banii aadama la yàlla wax doomu aadama la yàlla teral teral na ko ba noppi moo xam nag lu mu gën a sàmm teraanga jooju rek di gën di yokk ji ji gën a jege jëm ci borom gën a jege borom ba àjjana waaye lu mu gën a sàggane teraanga jooju di gën a dellu gannaaw di gën a dellu gannaaw ba mel ne bàyyi ma foofu rek doy na ah <laughs> doy naa yow. jërëjëf journaliste rek man xaw ci sax waaye da ngeen am tuuma. da ngeen am tuuma. tuuma ji rek xam naa ne du du du du du du loo xam ne. lu nekk lu mën lu mën lu mën lu mën a wér la. ndax nit ñi nit ñi nit ñi dañoo bokkut xel yi bokkut jikko yi bokkut yaakaar naa ne eh, journaliste bi nga xam ne am na xel mu rafet xel mu baax am na jikko ju baax te si dara boroomam yaakaar naa ne dana sàmm la muy bind ak la muy wax. Mm-hmm. kazaalika sabaan bi it noonu rek la demee. kon na ngeen góorgóorlu bu baax <laughs> xam ngeen xam ngeen dëgg xam ngeen fen xam ngeen luy dëgg xam ngeen fen di ngeen lu ba luy dëgg rek na ëpp seen seen i wax ak seen i bind ak seen yëngatu la dul dëgg na ngeen góor lu baax di ko wattandiku seen kéem kattan <laughs> foofu rek laa ci yem foofu foofu rek laa ci yem. rek laa yem noonu dong la demee bu leen jombale dara bu gisul sëriñ rek ñu ne nga defe ne da da moom taxawaayam bi daa jomb déedéet. ba jëmukaay wutukaay benn yàlla rek la yàlla rek fi nekk. waaye dafa moom moo waxaat boppam ne ki gën a tedd mooy ki gën a ki gën a ragal yàlla. wax ji jeex na. jërëjëf sëriñ ak taalibe bi foofu rek. jërëjëf Mbacke jërëjëf jërëjëf. na ngeen fi yàgg lool te nañu bokk góorgóorlu bu baax. maa ngi yéen a yem képp. ay jaam rek lañu fa suñu borom yàlla boo ko nu digal boo nu tere <laughs> noonu rek la demee. jërëjëf Mbaye ah. jërëjëf la la la la la yàlla yàlla yàlla suñu moom mayoon mën a fëx rek wutit yàlla. doonu yàqal dara. doonu yàqal dara ci suñu cëru adduna bi. ndax suñu boobam noppi na kenn ku ne lay sa cër yàlla noppi na ci. foo nekk mu fekk la fa ak moom. ana kon li ci am solo daal mooy nañu nañu xam ne am nañ borom nañ ko gëm nañ ko gëmee ba noppi ñu xam ne moom moom moo digle lii xam nga jàng jàng rek la wala laaj moo digle lii moo tere lii ñu góorgóorlu ci la mu digle luñ ci sama suñu kem kàttan ñu góorgóorlu ci la mu tere daw suñu xel suñu xel bakkan suñu kem kàttan wax bépp a ngi ni téere yi aadama <laughs> téere yi gàkku lii rek fi nekk. jërëjëf Mbacke jërëjëf. téere li ñuy bare bare bare bare ak alxuraan ak la ko jiitu woon. Hmm. lii dong la. jërëjëf Mbacke